mbokki internet Sénégo euh, ñu ngi leen di dalal fii ci seen euh, ëtt euh, bi nga xam te ni ñu ngi koy war a séq ak monsieur Djibril Diop nekk président Front pour la République du Sénégal am itam yeneen yeneen mbaxane wala boog yeneen dëppoo yeneen casquette yi nga xamante ni nii taxawaayam ci réew mi daf ci daf ciy feeñ nekkoon na membre ci Yewwi Askan Wi mhm. léegi nag mi ngi ci membre ci Yewwi Sénégal donc ci ci yeewi askan wi la jóge ne léegi moom mi ngi ci euh, yeewi Sénégal ba ci kanam tuuti diñ ci dinañ ci dellu si. Mm-hmm. lan mooy seen différence ak lan moo la génne ci yenn askan wi beneen bi tam mooy nga nekk membre ci F24. Mm-hmm. F24 mooy kuréel bi nga xam te ni dafa lëkkaloo ak ñenn ci waa opposition bi ak ci waa société civile. Mm-hmm. Euh, moom membre la ca. donc euh, monsieur Djibril Diop asalaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di la fay. di nuyu. borom kër gi ak ñi fiy liggéey yëpp sénégalais yi ak sénégalaises yi kilifa diine yi kilifa aada yi ak tamit euh, nga may ma tuuti ma jaale euh, sunu doyen sunu mag sunu nijaay muy Sidiya Ndiaye yàlla xaare ko àjjana te yërëm ko euh, gis na liggéey bu rafet ancien archiviste ñu gis liggéey bu rafet bu mu liggéey ci monde syndical rawatina ak ci des agents Euh, des collectivités territoriales yàgg leen défendre yàgg jàppale travailleurs yi jaar fu nekk dossier bu nekk mu traité ko pour nekk ñu liggéeykat yi kon Sidy yàlla na ko suñu borom yërëm te dugal ko ci àjjana yi gën a kawe Euh, jërëjëf euh, monsieur Diop euh, ñu jaal boobu tam ñun tam la rédaction de Sénégo mi ngi ci profité tam di yeesalaat seen njaal ndaxte léegi lañ jóge ci levée du corps bi foofu ca hôpital principal ñaan sunu boroom yeesal ngir mën ci moom te xarit ko àjjana taxawu njabootam monsieur Djibril Diop mhm. président Front pour la République du Sénégal mhm. da nga bokk ci dialogue national bi oui je membre de la commission politique et de la commission de paix et de sécurité commission boobu dégg naa ku ñu ko joxoon nga nga sànni ko lu tax. dañ ko jox. kuñ ko jox nga leen doo ko jël commission politique bi. ah non non du kuñ ko jox rek mu jël dafa am ñu ko doon ji jiite muy le euh, professeur Kanté ak professeur Issa Sall ak tamit euh, doyen Majib Diop professeur Kanté ak professeur Issa Sall ils sont hors du actuellement ay dafa am si liggéey bi ñu nekk Majib dafa feebar te travaux yi durée bi mu am dafa gàtt. donc euh, je ne pense pas et puis commission bi du n'importe qui lañ ko war a jox parce que d'abord buñ koy jox dañuy choisir koo xam ne am na maîtrise yu situation bi parce que dañuy génnoon ci benn dialogue politique mu am ay questions yu bari yoo xam ne dañ ko doon débattre di ci waxtaan kon donc euh, pour pour man ko mën a remplacer ñi ko yoroon il faut que ñu am kenn koo xam ne day nekk personne de qualité koo xam ne am na maîtrise mais depuis boobu léegi on a vu que et puis di yi kon donc euh, moi je pense que bàyyi DGE avec euh, le directeur général des élections mu continuer ko moo gën parce que moo gën a am maîtrise sur le choix moo tax ñun nous portons comme man suñu choix parce que d'ailleurs c'est lui qui a dirigé les premières réunions et les deux les dernières réunions te li des ci réunions yi bëreetul il nous reste que moins de quatre réunions kon donc li jël keneen di ko indi pour ñun bàyyi la direction des élections àggale liggéey bi ñu mën a terminer si jàmm. voilà euh, monsieur Diop jërëjëf ci jëf ci euh, précis précision boobu nga xam te ni euh, indi nga ko léegi waaye léegi yow dialogue dialogue national bi. Mhm. fu mu fu mu fu mu toll fu mu toll. waa dialogue bi xam nga dañu njëkk buy booy doog ñëw si dialogue ñu ko yàgg xam si réunion li ñu njëkk def mooy profito adopté luñ naan euh, d'abord dans un premier temps mooy xool lu ñuy adopté code de conduite bi trouvé nañ ci d'accord ak les termes de référence jëlee ko 22 indi ko ba ba ba 12 points léegi nag sende ko si deux groupes comme commencé nañ di waxtaan c'est en commission et en plénière di discuter si première peñe bi mooy peñe bi lal le parrainage caution bulletin unique ak tamit comme yooyu yooyu ponk waxtaanee si ponk yooyu leen démarré depuis depuis démb mercredi bon mu am euh, si parrainage bi lañ nekk euh, ñu dem ba si biir acteurs yi fa nekkoon yëpp muy pôle ak société civile ak Sénat ñu d'accord ne pour discuter si si parrainage c'est un peu technique ak proposition yoo xam ne dafa jóge si kujje gi ak majorité ak non adéñé yi dañuy obligé créer créer benn commission boo xam ne dina liggéey tey pour demee plénière mën ñu présenter ces travaux si consensus suñ si d' accord ak tamit yenn méthode ba xam d' accord nañ si yenn yi si jumtukaay yi ñu war a utiliser pour saytu parrainage beeg yooyu moo waral ñu ne chaque pôle dafay joxe ñaar muy pôle majorité pôle opposition et pouvoir de même que la société civile et les représentants de l' administration pour ñu mën a jël point yooyu parce que dañu lister si biir parrainage bi ay propositions yu bëri mécanisme bi ak tamit nii saytoo parrain yi ndax dañ ko war a wàññi ndax dañ ko war a ndax tamit dañ koy def parrainage boo xam ne dafay doon parrainage alternative nga xam ne dana mën a pare parrainer dina am parrainage des élus si ñenn ñi am ay élus bu ko amee ñu mën a parrainer foofu ak nombre yu ñu si war a fixé ñeneen ñoo xam ne bokk ñu am ay élus mën a am ay parrain ñu mën a def parrainage citoyen proposition yooyu ñu ne nag yooyu teg benn commission bu gaaw bàyyi commission boobu liggéey après restituer ñu travaux yi plénière bi mën a nag penser si loolu boo xam ne da koy adopté dañ siy d' accord ou bien dañ si bañ d'accord loolu la ñu war a mën a discuter demain incha allah après continuer yeneen point yi muy caution bulletin unique ak euh, yooyu mooy point yoo xam ne muy première yi nekk si si ponk yi waaw euh, jërëjëf ci ci si euh, leeral yooyu la monsieur Diop mm-hmm. monsieur Djibril Diop nekk président front pour la république du Sénégal léegi ginnaaw précision yooyu ngi indi ci ci wàllu dialogue national bi mm-hmm. yow da nekk membre ci Euh, les forces vives de la nation. ñu mhm. tuddee ko F24. Mhm. ba pare nga bokk ci euh, nga bokk ci euh, ci ci dialogue bi. Mhm. loolu naka nga mën naka nga ko mën a expliquer parce que F24 ñi ci bokk ñëpp daanaka. Euh, dañoo ñi ci ëpp ci ku jege lañu bokk. Mhm. ba pare nekk ci ñeneen ñoo xam tam dañu nekk ci ay mouvement yoo xam te ne nii. Mhm. Euh, wala boo société civile bi. Mhm. ba pare dañu radical ci ne bu kenn wuy ji euh, woote président boobu lay. oui ya waxoon naa ko au début nee naa leen prérogative fu F24 du moom mooy jël décision sur des décisions politiques parce que F24 plateforme la boo xam ne dafa regrouper des entités politiques de la société civile et des personnalités. dialogue bi ça concerne la majeure partie bu dee nag lu jëm ci commission politique sa concerne les acteurs politique ak yenn citoyens yoo xam ne peut-être que yenn article da leen laal kon pour man euh, Sénégal fii ñu toll dafa laaj waxtaan parce que ku bëgg nag jàmm ci réew mi looy njëkk a mooy fexe ba kujje gi ak ñi yor réew mi ak kujje gi ak acteurs yoo xam ne ñooy yëngu ci réew mi ñu toog ñu waxtaan ku nekk nag libre nga bu la neexee nga ne du dem mais du F24 mooy joxe orientation wala décision si ay parti ou bien regroupement de parti du F24 moo si war a mën a prononcé bu jox si ñi si wax nag di si wax seen seen point de vue la mais ñun ñu gisee dañ ne F24 n'est pas habilité à dire que kii mooy dem ak kii moo dul dem moo tax dernier communiqué F24 dañ ne ku bëgg dem nga dem ku bëggul dem tam nga toog kon donc question boobu ça a été déjà réglé mais ñooñu tamit dem nañ ba si biir ñoomit ne dañuy créer benn dialogue du pop xam nga c'est incohérent si si si si si d'abord si seen wax. ci sa gis-gis yow si gis-gis parce que munoo wax ni ñee waruñu dem dialogue ba nga dem ba ci biir ne damay créer dialogue donc da soit da ngay rejeter lépp wala soit nga nangu lépp te je pense que acteurs yi si nekk dëgg dëgg dëgg bi ma gisee mooy demoon si jaloog bi moo gën parce que d'abord dina mën a permettre am occasion pour discuter. les tenants du pouvoir surtout nag certaines questions yoo xam ne chaque fois day revenir sur des discussions au niveau euh, du de la plateforme ñoom dañuy wax ni Euh, ñu dem ci dialogue boo xam te ni xamuñu les tenants et les aboutissants maanaam euh, booy dem ci dialogue il faut nga xam dialogue bi lan moo ko tax a jóg mooy cëslaay li lan la ah, mais après bi bi ñu demee ba ci biir nag ci la ñuy soog a wax ni euh, amul ci le président wax ni amul question tabou après ñu wax ne léegi dialogue yi base bi lii ak lii ak lii la mais lu tax loolu génn wuñ ko woon ne kaay la ñuy waxtaan ci nàngam ci sujet bi ak ci sujet bi ak ci poñ bi waa xam nga ñoom bu fekkee ne Euh, dañu yàggul dem dialogue wala dañoo amul expérience ñu wax ko nit ñi je pense que ñu nekk vingt 24 ñu si bari am na ñu étudier l' état xam état xam lépp même bu dee société civile bi am na ñoo xam ne par yàgg nañ participer si dialogue dialogue nag premier jour bi ak le présidence ouverture la ku la woo nag dina la wax baa mu jox la mm-hmm. boo demul si ouverture ba mun leen discuter et puis dialogue bi les termes de référence dañuy envoyé benn chapeau ku nekk pensé si moom la ñuy regroupé te dialogue bu ñu fàttali ay commission la ñoom bu fekkee ne ils ont xam nañ luy dialogue dialogue ay commission lay doon mun na doon cinq six sept huit ba neuf commission te dialogue bi dem na ba huit à neuf commission commission bi si bi tax gars yi di wax dialogue bi yëpp commission politique la ñi rejeté tey ñu dem tey ponk yooyu ñuy waxtaanee mais ponk yooyu bokk na ci ay ponk yu ñu war a demee élection présidentielle nan nga mën a demee élection présidentielle te waxtaanu leen surtout nag fii situation dëkk bi toll ak euh, ni ni mbir yi mel ñu ne dañoo bëgg dem si ay élections apaisées léegi nag yow bu fekkee ne dañu génnee calendrier électoral bi yow nga yàgg dénoncé ne parrainage bi niñ ko defee baaxul yow nga yàgg dénoncé ne ñii dañ leen a jàpp ay article téye leen ba am keneen koo xam ne article yooyu mun na ko lonk mais yooyu war nañ ko loolu pour régler ko da ngay di toog ñu yor pouvoir bi ak ñu war a organiser élection bi donte am nga ay député nga xam ne bu ñu paree si commission politique bi pour mën a changer day am projet de loi te projet de loi bi gouvernement bee koy bee koy préparé yow propos mun nga proposer mais bu dee projet de loi gouvernement bee koy préparé léegi nag boo demul waxtaani est-ce que question yooyu di nga ko mën a régler dañuy kon wàcc ci mbedd mi di dóorante ay xeer ba nu mujj ji mujj si yenn pays yoo xam ne dañuy mujj même en temps de guerre su lu mu mën lu lu mu jafe-jafe jafe nit ñi dañuy toog si table bi waxtaan. Mm-hmm. kon bu waxtaan amul c'est-à-dire dafa am ñenn ñoo xam ne pour ñoom lu ñuy gisee rek ne ñëpp war a gisee. am ñoo xam ne nag dañoo am ay ay guerre personnelle ñooñu il n'ont qu'à régler kooku seen kii mais affaire F24 warul nekk affaire personnelle warul nekk nag benn groupement boo xam ne dañuy soutenir wala jàppale kenn dafa war a doon l'affaire du peuple euh, dama ne la un dialogue national c'est un président moo koy voté parce que légalement dañ ko élire opposition nu organiser dialogue kooku man buñ ko waxee mën ne naa leen même société civile bii di wax buy wax day nekk arbitre mais tey jii ñi si wax ñëpp ñëpp ñëpp bu ñu liggéey ba pare si dialogue bi seen travaux yi ban sens lay am obligé nga jël travaux yi di am koo ko jox bu fekkee mënoo ko jox président de la république di nga ko jox ministre wala nga jox ko gouverneur ku leen di diriger du moom. léegi ñoom seen dialogue du peuple bu ñu paree kan la nga koy jox président bi loolu bu ñu toogee di ko jox wala di ko restituer du dialogue c'est-à-dire que bàyyi di nax nit ñi. gis nga Sénégal dafa war a dafa toll foo xam ne dañu war a toog waxtaan dañu war a waxtaanee les sujets et les yoo xam ne ñooy touché dëkk bi question yooyu nga xam ne yu si bari processus électoral bokk na ci li taal dëkk yu bari kon dañ ko war a waxtaanee xool nan lañ ciy demee ñun ñu war a dem élection dem élection nit ñi voté si jàmm ñu delluwaat comme Sénégal ban xamoon. Euh, monsieur Diop est-ce que mën nga ma tekkil un peu euh, ban euh, différence mooy am. Mhm. ci diggante Yewwi Askan Wi ak Yewwi Sénégal. waaw xam nga bë bokk bëri na ay différence parce que Yewwi Askan bi la nekkoon charte moo ñu boole woon mais Yewwi Askan bi dafa nekkoon dañoo dem ba ci biir mu nekk ay jalgat mu am ay jalgati charte mooy d'abord euh, dootuñu respecter charte kan faloon conférence des leaders nangul jóge sa bopp ba. mooy kan muy Khalifa Ababacar Sall. mu dem ba si nga xam ne période de six mois la ñu waxoon ko ko si def danga nga war a jóge si kii ak commission yi muy commission yu ñu dirigé woon ñoom Déthié ak ñoom Habib Sy affaire renouvelé wuñ ko ñun ni yàgg ko wax. ak tamit si biir charte bi doxalin bi mooy ñett nit ñooy toog wax ba ko imposer. Euh, bëgg ko imposer plénière bi mooy conférence des leaders bi ñun ñu toog tamit gis doxalin bi mooy xeexu personnel la ñuy jël. mooy si ñett ñooñu bu kenn bu dara laalee kenn rek ñëpp dañ si war a situé ñu yàgg ko bañ ak comportement bi ñu jógee local yi parce que ñoom dañoo jógee local rek yaakaar ni nekk nañ président de la république lu leen neex la def ak tamit charte yi ñu tegoon pour si commission de médiation ni mu war a investi investir ñu bot di yëpp dem ba ci biir def ko investiture ñetti nit ak yu baree baree bari si biir doxalin bi ñu yàgg ko kaas yooyu ne bi ñu demee ba dajale yu yëpp ba mat si leen wax ni comme ñun ñoo doon ànd ak ñoom à chaque fois ñu ñuy dégg te ñii ñun bañuy ñëw fii dañ ne woon méthode yi ñu gis ci Sénégal ni ñu koy gouverner Macky Sall ni mu téye réew mi neexuñu te baaxul ñu dem nag gis lu gën a pire si si Yewwi muy si comportement Ousmane Sonko si comportement Khalifa Ababacar Sall ñoom ñaar ñu gën a pire sax Macky Sall parce que ñoom lu ñu xalaat rek lañ bëgg di ko consommer loolu nit lu ñu bëgg moom la def gis ngeen ni ñu def suñu liste dem séddoo ko muy pur taxaw ak au niveau de l'Assemblée nationale au détriment de 27 entités loolu est-ce que ànd ñoom ñoo doon wax ànd wegantele ànd nawle ànd mbokk la tey jii gis nga ñun lañ waxoon ci biir Yewwi Askan bi yëpp tey jii reflété na tey jii ba Khalifa Sall ne day dem dialogue ba ñee ñoo ngi koy saaka mooy wan ne que du ànd bu sincère ànd la boo xam ne ku jekku sa morom rek dóor ku ñun nag ba ñu gisee yooyu yëpp xam ne ñii duñ du nit yoo xam ne c' est des gens yoo xam ne kii aiment ce pays c' est des gens yoo xam ne seen bopp rek leen tax a jóg ak seen i ñooñ ak seeni waa kër li ñuy jiñ waa ji ñoo gën a piir ñu ñu teel a dégagé wu daane nag dinañ dégagé wu toog nag teg loo xam ne réew mi koy tax a jóg euh, ànd ak waa réew mi ànd ak parti yoo xam ne ñii woon si biir yeewu askan bi ak feneen pour teg benn affaire boo xam ne dina nekk loo xam ne dina am projet de société pour ce pays kon am na kon am na ay parti <clears throat> ay parti ak mouvement yoo xam ni génn nañu Yewwi Askan Wi ñoo fekk si leen ci Yewwi Sénégal. fekk si ñu. donc bi ngeen di dem boobu Khalifa Sall moo nekkum président. moo doon nekkatu ko léegi président Habib Sy moo ko nekk. waaw parce que ñun lañ dénoncé ñoom bi ñu xamee ne attaques yi métti na ñu ne ñoom dañoo sensé texte yi loolu la ñu wax ma ne leen mais eh, te réunion mosul am parce que bi ñuy jël Habib di ko teg amul réunion ñoom ñett ñoo concerté wu jël Habib jox ko ñeneen ñi si des c'est des leen di topp rek amuñu sax sens dañuy wéeru rek léegi nag ñun dañu waxoon ci biir ne Khalifa Sall mii mandaam jeex na dañu war a renouveler. mandat bi ñaata kii la woon. six mois la woon. ok trois mois six mois dafa war war woon war woon nekk conférence des li président conférence des leaders ci temps bi ñuy defar liste. ñoom ñu jàpp si non non ñu nekk si di xeex ak ñoom ak ñiy jiite mais gis nga li li ñu def liste bi parce que. option bi mu amoon mooy nekk président des leaders ba defar liste bi def Mbico Mballo ak Ousmane Sonko bañ si paree mu dem mais yàlla day àtte mooy la mu defoon liste liste national ba jàllul suppléant ñoo mujj dem yàlla dem ba ca biir yàlla weer leen ña ngay reyante tey ba mu ne dem dialogue ñu gis sax dem nañ ba benn moment ñoom ñaar sax ñooy xeex kii naan ba may dem tàggu naa la kee naan ba ma génne wuy naal téléphone mooy wan ni que du ànd bu sincère dañ def loolu moo nekkoon suma laaj bi waaw euh, jafe-jafe yi nga xam te ne mi ngi ci diggante Euh, yeewi askan bi ak euh, décision Khalifa Sall dem bokk ci ci ci kii bi ci euh, ci dialogue national bi est-ce que jafe-jafe yooyu lu lu lu ñu mën a prévoir la wala. non xam nga loolu nuyoo woon na bu yàgg parce que guerre d'intérêt la xam nga ñun dañ doon dénoncer loolu dañ ne xalifa Sall dafa am benn lu vision bu mu am mooy nekk président de la République du Sénégal Ousmane Sonko am vision boobu ñu nekk na di ànd parce que ñun dañu yàgg ne yeewi entité bi mu toll dañ ko war a sauvegarder mu nekk entité politique waaye nag du ñu bàyyi anarchie am Yewwi mooy dañoo waroon waxtaanaat si même qualité candidature yi Yewwi mu naan deux candidats mais bi ñu demee ba si biir ku wax loolu ñoom ñu attaqué la ñu nekk seen ñoom ñaar ñu mel ni mburu ak soow comme Idriss Seck ak di ku nit ñi di wax seeni wax ba ku nit ñi à législative bi ñu demee nag yàlla dafay atte à chaque fois boo waree dañu war nit ñi bi ñu demee ba si biir nag question d'intérêt am parce que Khalifa a besoin dialogue am pour mu mën a sauver po pour mu a bokk parce que wax na ko dama man naa bokk rek kee tamit xam na ni pour mu bokk levier bu mu mën a am mooy dafa mën a sukkandiku si Ousmane Sonko parce que parce que euh, politique day doxee nen noo xam ne ki yor pouvoir bu gisee coalition bi gën a mag souvent day bëgg a am ñooñ bu muy waxal hmm. pour mën a jaar fa prondool pour tas coalition bi mu doon na xalifa Sall Khalifa Sall na ne opportunité la pour mu mën a wax ak wa wax ak Macky parce que may président conférence des leaders ñu jël kenn teg ko mu nekk seen interlocuteur muy Barthélémy Diaz ba ñu demee di waxtaan dañ ko ci boole woon. dañ ci boole dañ ko ci boole woon moom Ousmane Sonko boole woon nañ ko ci. parce que Barth wax na lu leer nee na dafa ne bi mu koy wax euh, ndaw si nekk set TV defuma seen promotion mu ne ko euh, dama ne sama xarit bi man ak yow mënuñoo bokk waaye mën nañoo négocier ba grand bi bokk te bu bokkee. soixante quinze ans lay am benn mandat lay def mën ngaa nekk sax premier ministre war nga nekk président assemblée bu ko defee dinañu seetal après yow nga nekk président mooy war ni que ñoom sax seen ànd deal ànd deal la woon dañ doon ànd même si biir di deal ku nekk di xool na nga mën a kuwee sa morom wala na def ñu ànd nag di deal si ki leen gën a man dàq deal nag jëm sa président ba ban demee nag président bi xool lu ko gën mooy fexe ba téye kenn ki bàyyi kenn ki muy lapp te xamuñu ni ñoom ñëpp li ñuy wut mun nañoo dem moo tax dañ doon nekkoon biir yeew def ko benn levier de communication et d'échange ak tamit benn levier bu ñuy amee parce que dañ nekk si problème ñoom ñaar ñëpp kële mënul bokk kii tamit am nay dossier ñu yaakaar ne nag foofu au détriment nag dañ yenn ñi sincère àndoon nag ñoom mooy wan ni que kon ñooñu bu ñu amee problème mooy wan ni que buñ ne ñooñu ña leen war a jox Sénégal dama naan Sénégal y a un problème ay gars yoo xam ne dañ dem ba ci biir di diile réew mi di diile pour seen propre personne est-ce que ñooñu jar na ñuy continuer ñun di ànd ak ñoom. maanaam maanaam yow da nga jàpp ni ñi nga xam te ne nii potentiellement mën nañoo diriger réew mi ëllëg. Mhm. kenn ku ci nekk Macky Sall téye na sa dossier boo xam te ne nii dafa lay obligé nga ñëw ci dialogue bi wala. wa obligé parce que kenn ki kenn ki moom sax wax na ko nee na moo créé dialogue bi. mooy. xam nga parfois dama naa Macky ñenn danaa makki Sall moo bëgg dialogue bi mais Barth toog ne moo créé dialogue bi kon dialogue bi taxawoo créé. donc donc c'est dialogue la. parce que ñoom ñoo bëgg ñaan xam nga ñoom dañuy yalwaan. waaw dañuy instant bi si yalwaan gu métti lañ nekk. pour que Khalifa Sall bokk. parce que moo tax boo xoolee si si li ñu war a discuter sax si ponk yu ñu jëm fii ak lundi bu fekkee ne ah terminé nañ yeneen yi dafa bokk ci loolu mooy situation ñoo xam ne si article L29 30 ak 57 ak tamit euh, révision procès Karim wadd yooyu bokk na si ponk yi. donc bokk na ci point yi nga xam point yi ñu war a bi war na ko waxtaane dialogue national ci la a waxtaane war na ko waxtaane mais est ce que nga ni loolu itam euh, am ngeen ci njort bu rafet man nag pour man sama gis-gis bu baax L29 ak 30 kenn waru ko laal lu tax parce que munoo def banditisme wala nga détourné alalu réew mi ba pare ñëw ñu ne projet nga sa pen nga ñëw seetaat wecc bokkaat pour diriger réew mi boo sàccee alalu réew mi téye ko dajale ko mais mun naa xaar keneen mun na ko def ñi nekk lieutenant am na ñoo xam ne mën nañ ko def mën nañu mu duggee léegi day day jox sax porte

procès mun nañ ko réviser xam nga luy honnête hmm. mooy mu ñu demander ñoom ñu réviser seen procès Idriss Seck defal nañ ko ko def ko non lieu loolu mooy gor mais doolu la nga amu si article yoo xam ne loolu mooy kon d'accord naa que liñ ma de liñ ma tuumaal maa ko def waaye ma jéggal leen waaw léegi jéggal leen ma mais nag ab ab sàcc wala détourneur kenn du ko jox réew hmm. ban réew la nekk hmm. kon donc léegi sàcc yi nekk si kaso yi ak ñenn yi ñooñu kay mun ne leen bàyyi ñu compétir. kon daal pour yow Khalifa dafa waroon def comme Karim. dafa waroon def ne laajte révision procès moo gënoon pour man ñaari ak tamit voix amnistie bi may dégg gars yi di wax gisuma ko fële tamit baaxul. no attends kon loolu euh, amnistie bi. non gisuma ko si. attends amnistie pour Khalifa. non ñoom am na ñu naan dañoo amnistie moo gën. mais amnistie baaxul. mais amnistie moom baaxul. amnistie moom baaxul ay fee la moom amnistie moom baaxul. c'est les faits parce que da ngay joxe porte boo xam ne ñenn ño xam ne ëllëg war nañ leen topp. buntu buntu bu bon buntu la bu bon a bon a bon moo tax ma ne moom lu mu war a demander mooy révision procès pa pas loolu sax honoré wu ko. moi je di ne nee naa bu accès si question boobu j' ai j' le poids. parce que dinaa leen wax nag yéen a ngi ubbi benn brèche boo xam ne parce que article yooyu yàgg na fi depuis des années 70 si lañ ñëwee si code consensuel de Kéba Mbaye mu nekk article 3 et article 4 si Ablaye Wade mu nekk 30 ak 31 ki ñëw def ko vingt 29 30 corsé ko si 57 pour ne boo bu bu fekkee ne setoo munoo nekk candidat c'est-à-dire que c'est c'est te article yooyu dañ ko war a bàyyi noonu parce que réew nag. ab njublang wala trian wala sàcc waru ko diriger. tout à fait loolu moom ñëpp d'accord nañ ci ak yow kon donc yow euh, euh, en tant que membre de la commission euh, politique ci dialogue national bi mhm. pour yow xalifa bokk ci élection yi mënut a daal non non non man du ma ne non non non parce que nee nga il faut mu préciser article waaw yow doo ko voté non man bokk te Khalifa ci foo article boobu lay lay la ngaamu pour ñu pour ñu ñu setal ko pour mu mën bokk xam nga moom xam nga ñoom dañoo dugal si peñe bi munoo wax kii ak kii parce que dañoo regroupé. xam nga da xam nga xalifa moo ñu gën a fës. xam nga ne terme de référence yi xam nga xam nga du xalifa rek la téye. mais moo ci gën a fës. waaw waaw sur le plan politique parce que moom bëgg nekk candidat. waaw moom moom mu bëgg nekk am na yeneen yeneen candidat ñoo xam ne peut-être waxaguñu mais article boobu laal na leen xam nga xam nga xam nga man du ma viser loi du viser nit rek loi moom dafa impersonnel mm-hmm. loi des visées des visées presque ñëpp ñoo si war a tënku mais man sama gis-gis mooy moom honoré ko mu koy jaaree foofu. loolu moom bu ko defee mooy damaa yalwaan. et boobu mun na ubbi beneen braise pour majorité présidentielle bi ñu imposer seen troisième candidature. tout attention. moo tax nee naa leen dialogue bi ñu jëm nii. parce que ñoom mun nañu da ngeen di ñaan ñun nag lii c'est légal sur le plan juridique waxu kee waxam la. lan moo légal sur le plan juridique. non dama naan leen ñoom mun nañ ne. par supposons mun nañ ni nañ bàyyi conseil constitutionnel régler question mandat candidature yi. léegi affaire troisième mandat tamit bu buñ ci discuter kon donc léegi nañ bàyyi ñëpp déposé xam nga foofu bresse la boo leen di ubbi effectivement léegi nag boobaa dan naa leen yéen da ngeen a ñaan mais ñun nag dañuy bàyyi ka ka war a atte mu atte mhm. bu ko defee nag yow nga may leen benn protocole ñu yaar fa Euh, monsieur Djibril Diop président Front pour la République Sénégal ñu dellu soit ci poñ bi mujj ci sunu waxtaan mu nekkante euh, ci diggante li nga xam te ni euh, mooy ECOTRA ak euh, Ageroute. ndax ndaxte am na ay liggéey yoo xam te ni. dañu waxoon nañ ko jox doomu réew mi ñu liggéey ko. ba nga xam te ni euh, wàllu jëm ñaajo bi ci la bokkoon. waaw ba ñu am yu bëri yoo xam ne joxoon nañ ko euh, benn société bu tudd euh, Ecotra. Mhm. Ecotra Ablaye Sylla jiite ko te mu bokkoon ci ñi nga xam te ne nii. Mhm. mooy samp nëndu ne. Mhm. maanaam balaa ñoo jéggaani. loolu ñuy jéegaane ah bu fekkee ne am na ñoo xam mën nañu ko def ci biir réew mi. Mhm. nañ leen ko jox ñu liggéey ko. Mhm. moom la ñuy wax c'est cinquante préférence euh, cinquante pour cent pour Sénégal. Mhm. Euh, jafe-jafe boobu amoon diggante Ecotra ak Ageroute euh, pour nga ñëwal ñu ci tuuti. waaw waaw parce que man ba ma njëkkee gis benn sénégalais comme si la Ecotra ñu koy ñu jox ko mu gagné marché bu toll ni jam ñaajo si voirie réseau d'assainissement ak yooyu dama ne enfin voilà la vision lii mooy yoon parce que d'abord préférence nationale te société privée nationale yi dañu war a accéder au marché Ablaye la Gagné si yor benn société boo xam ne buñ koy wax si domaine matière matériel wala engin des centaines d'engins la yor ak huit cent et quelques employés kooku du am du du du société bu bu ndaw mu def ay expertise am dans le domaine du BTP ak dans le domaine dans toutes les domaines euh, dans tous les domaines mu gagné marché parce que gis nañ ni marché boobu hauteur de cent quarante et quelques milliards marché boobu euh, tabax ay autoroute la ay pont deuxièmement def ci assendissement ak voie rek yooyu moom am lu ñu naan xam nga pôle urbain bi dafa am lu ñu koy waxte sax Euh, bi ñu joxee euh, commité en charge du pôle urbain de Diamniadio mu légué travaux yi à Ablaye Sylla par ordre euh, de décision Ablaye Sylla gagné marché bi commencé di liggéey bi ma defee ay ay question questionnaire su dañ ne pont bi boo xoolee pont boobu am problème si la moo ko préfinancé à hauteur de dix milliards mais ñu xëy jékki-jékki dégg ne kooku kat préfinancé pont boobu nekk sénégalais yor ay sénégalais inv ñu investir ci Sénégal sénégalais yooyu di di ko accompagner di liggéey di ci am dara ñu ne dañoo war nangu war a nangu parce que am na ay ñool-ñool yu am si chantier bi dañ ko war a nangu jox ko beneen société ba gars yi sax ne société bi xaw ma matière SA la tudd xaw ma moom lañ ko bëgg jox parce que promettre nañ ko 18 ponts au niveau du Sénégal et de Dakar ma ne loolu kenn mënu koo nangu parce que mënuñu le président de la République d'ailleurs que nga xam ne lu nekk ak yàgg nañ ko indexé ne ko waruñu nangu si Sénégal marché Sénégal yi ay étranger rek di ko gagné te xeexuñu benn étranger ndax am na expertise mondiale bu am. ak africaine waaye nag ku ku wàll yaa ni sa dëkk tëggul. waaw sa dëkk tëggul léegi nag ku mel noonu dem ba gagné pont bi commencé si réagir jël alalam def si nga jëkki jékki jóge fële kenn xam foo jóg nga xam ne yow yaa yor Ageroute parce que travaux état bi yu bari si voir yi ak si bëri yaa ko yor. ñu dem ba si biir nga jékki-jékki attaqué benn benn société léegi ndax lan bëgg beneen société étrangère boo xam ne français jógee pour mu jël marché bi ñu sous-traité ko ñu ne loolu xel mun ko nangu quel est problème ki ko préfinancé kay dina ko àggale parce que alalam la ko def maintenant xam nga xam nga loolu moo yàq Sénégal mooy d'abord que sénégalais yi sénégalais du jàppale mukk moromam dem jëli benn étranger fële indi ko moo ko gënal muy jàppale seen loolu bu ñu si tënkoo kañ lañ kañ lañ seen réew mi di dem. waaw mais jëli jëli doxandéem bi mooy étranger bi. jëli ko ci dëkkam indi ko pour mu liggéeyal Sénégal. waaw liggéey boo xam ne ay doomu Sénégal. mën nañ euh, ko mën nañ ko. waa mais loolu xanaa daa am lu nekk ci suuf. non dafa am lu nekk suuf man parce que dama ne comme li ñuy wax moo si nekk rek su de table yi am si marché yi c' est le moment de le régler parce que le président fan yii gis ngeen patronat bi bi eh, kii amee euh, émeute yi amee liñ si yàqule dafa bari te ana étranger di dañuy obligé dem patronat bi fi nekk ñi fi nekk comme ñoom Ablaye Sène ñuy obligé jël li leen neex li leen naq rek yooyu di xaar nag kañ leen leen di fay. Hmm. léegi nag fii lañu war a yeewoo xam ni sénégalais yi nekk si réew mi te yor li mën a defar réew mi ñu ñoŋal leen dooleel leen pour man jam ñaajo pôle bu toll noonu sénégalais yi ñoo ko war a defar en commençant par club C50 ak yeneen entreprise yi Ablaye Sylla liñ ko jox ci marché jam ñaajo dañ ko war a dañ ko war a encourager jàppale ko gunge ko mu réaliser li mu war a réaliser d'ailleurs que dégg naa le président de la république sax moom que def na si sax gars yi ñu ngi naan sax moom euh, ci dayoom li mu wax mooy préférence nationale bi mais dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañ nekk si direction yi mais di xeex sénégalais yi rek moo leen tax a jóg kon may wax ni ñooñu di def loolu di xeex lu mel ni ay Ecotra di xeex yeneen société sénégalaises yi dañ ko war a arrêter parce que sénégalais yii tax sénégalais di am liggéey mooy mën a permettre jeunes yii tey jii nga xam ne ñu si bari amuñu si lu ñu jàpp ñu mën a jàpp si ñoom parce que mu noo jël koo xam ne dafa am 800 employés ak lu tegal yor des matériels yoo xam ne nouvelle génération la en Afrique boo ko xeexee mu dem beneen dëkk mooy loru nga parce que boo ko xeexee tey jii si Sénégal fii mu dem benn Côte d'Ivoire dañ koy jël. bu ko defee nag nga nekk fi naan noo doomu Sénégal yi bëgguñu liggéey seen réew au contraire ka fekk yooyu yooyu war a arrêté ak dessous de table yi dañ ko war a arrêté ak tamit gis benn société étrangère souvent les sociétés étrangères dañu boo waxee ñu ne non ay normes internationales ay normes mais pont yi pont yi yi Ecotra defar bu fekkoon ne nekk si norme euh, norme internationale dina gagné ay marché Dubaï bay dem di ko gagné dans la sous-région il faut qu'on arrête il faut accompagner le secteur privé national d'ailleurs bi mu amee que le président même si dialogue bi ñu de patronat maa nga fa wax nañ seen manquement ak yi leen dal yëpp bañ dem ba président ne dégg naa leen ndax am na commission boo xam ne sax yéen da ngeen war a bokk ci commission yi pour mën a accompagner les travaux def expertise parce que Sénégal sénégal yi ko war a tabax. Mm-hmm. étranger yi mën nañ si dugg parce que li may wax moo si nekk bu amul transfert de technologie. réew même booy jëli keneen sax day fekk technologie bi nga soxla wala li nga soxla amoo ko nga dem jëli ko mais def transfert de technologie ànd ndoog ak doomu sénégalais yoo xam ne ñi ngi bëgg dugg secteur boobu la si dugg pour ànd ak ñoom liggéey ak ñoom comme lu mel ni club C50 c'est à encourager dañ war a jàppale ku mel ni la Sylla ñu ko fragiliser parce que tey jii boo ko xeexee day obligé jël ay bagaasam ay kii kiyam dem léegi nga obligé nag taxaw après nan non Sénégal yi bëgg ñu liggéey Sénégal tàmm nañ ko bu ñu defee noonu non on dit il faut arrêter sa il faut nous lançons un appel au chef de l'État comme le fait ces travailleurs bi coow yëpp amee parce que loolu rôle chef de l'État la mu teg si moo ko war a surveiller boppam xool prix parce que yàgg naa wax ni secteur patronat bi dañuy toog lu yàgg du ñu gis président yàgg naa wax ne patronat bi le président de war di voyager ak ñoom mm-hmm. expertise bi ñuy am ñu mën di ko jaayale bitim réew di jëlaale bitim réew di ko indi pour di def Sénégal. Ah, parce que man nangootuma ci autoroute. ci Sénégal parce que ñu ngi bëgg am na beneen autoroute boo yeneen yeneen autoroute yoo xam ne war nañ ko defar Sénégal yu war a dem Tivaouane prolongement bi war a dem yooyu Sénégal yi ñoo ko war a gagné. effectivement parce que ay ay Ablaye war na mën a gagné marché yooyu ak yeneen société holding B BTP yi fi nekk ñoo ko war a tab ba kañ. ah parce que gis nañ fi euh, chaque fois bu président bitim réew di ñëw ku ci mel ni président turki bi. Mhm. président chinois bi ñuy ñëw. Mhm. daanaka seen avion dañ koy duy ba mu fees dell ci ay ay chef entreprise yoo xam ni dañuy ñëw pour gagner fii ay marché waaw fii boo demee fii ci Diamniadio bi ngay wax. Mhm. Euh, ay entreprise BTP yu bëri ay mhm. c' est des turcs. oui c' est des c' est des marocains. chinois. Mhm. c' est des chinois bëri na. c' même fii à l' intérieur en pleine ville en plein en plein dans Dakar ay entreprise BTP yu fi ñu tabax fii ay immeubles. waaw par loin d'ici rek. Euh, waaw bëri na fii. waaw donc. Euh, Sénégal bon comme ni ñu koy waxee on n'est jamais prophète chez soi. Mhm. bon euh, sénégalais yi dafa maanaam euh, suñu li ñu moom suñu alal suñu doomu suñu doomu réew dañ koy xeeb. Mm-hmm. ba mu dem bitim ba ba waa bitim réew ñëw di mu leen di liggéeyal lu mucc ayib ñu naan mm-hmm. doomu sénégalais la lu tax ñëwul liggéeyal ñu waaw ko ay xat-xat ak ay jafe-jafe yoo xam ne dañ koo teg ci ndoddam mm-hmm. moo tax mu gàddaay dem feneen liggéey fa et pourtant doomu sénégalais boobu toog ci dëkkam di ko liggéey fi di ko teg ci bëtam mooy li ko neex mooy li mooy li fees xolam te tam euh, xam naa ni euh, xaw ma Abdoulaye Sylla mosuma ko teg bët mais xam naa lu koy neex lay doon mais man man même man mii di wax ak moom ne ñun day nekk la préférence nationale parce que mënatuñu gëm des jeunes yoo xam ne ils sont très dynamiques xamoon noo def ba ñu construire dara nga war leen a jàppale téye seen mbagg ba nu àgg comme ni ñu ko defee mais aux États-Unis ñoom dañuy pour quatre cent et quelques hommes d'affaires le président bi di àndal dañ leen di promouvoir day mel sax même en Chine chinois yi sax dañuy accompagner par di financer waale seen entreprise yi nekk extérieur pour rek ñu mën a compétir le monde monde de compétition la parce que man dama ne nguur gi moo ci a jàpp mais mais loolu laa wax dama ne nguur gi nanguwuma nguur gi infrastructure yu toll noonu nga xam ne day àgg ba des centaines de milliards nga jël ku di ko jox ay étranger bàyyi sénégalais yi ko mën moo tax ku mel ni ab Ablaye Sylla ak ñi mu àndal c'est le moment que sénégalais yi jàppale leen sénégalais yi jóg boot leen et puis Séné et nekk tamit dafa am ñenn ñoo xam ne ñooy nekk si suuf di leen xeex xam nga sénégalais leen la gën a mën. du jàppale moromam mukk day bàyyi ba trop tard mu jàppale ko si le moment que ñu soutenir leen il faut qu'on soutienne nos hommes d'affaires sénégalais pour ñu mën a accéder du du du jam ñaaju rek man dama ne au la yeneen autorité yi et war na man même bu fekkee day am il a Tivaouane wala fenn il a Fouta wala yooyu yëpp ay contrat war nañ ko mën a gagner appel d'offre yi ni ñu koy defee parfois dafa mel dañuy xeex sénégalais yi parce que dañuy bëgg tubaab bi di ko gagner bu fekkee nag tubaab bi dafa am yu leen di defal ñu wax ko nit ñi te loolu doxalum réew corruption du doxal réew réew da koy teg si dëgg teg ko si si ay réew boo demee Chine xalaatoo ab chinois teg di def app ñu def appel d'offre chinois nga ñëw yow Sénégal ne da ngay compétir ak ñoom parce que ñoom dañoo gëm seen préférence nationale ak consommer chinois foofu la Sénégal toll te bu coow amee tey jii si réew mi wala dara am wala lu metti am ba fi Covid bi amee mais ñoom am d'affaires yi ñu ëpp lu ñu contribuer ñeneen ñi fi nekk étranger yi dañoo daw dem toog seen réew lu ñuy jël sax mooy jël économie bi day day day mujj sax suñu économie bi boo xoolee dafay traversé mooy croissance bi ngay wax ak li ngay wax yëpp ruusitu mburu lay doon comme ni nga koy waxee mooy d'abord que day mujj di dem à l'étranger mi ngi mel ne l'exemple de Sonatel Paris fa France Télécom am bu ñu demee ba séddoo dividende yi état bi tout la si gagné ak particulier li si des yëpp mu rapatrier ko le moment nag sénégalais yi nekk si BTP. ñu mën a dugg si dans le domaine banque du de banque dugg si technologie parce que ñoom ñu ngi ko commencé def di ko développé léegi sénégalais yooyu muy ay écotran ñu am ay yenn jumtukaay yoo xam ne am nañ ko pour mën a exercer seen métier pour mën a tabax Sénégal kon ñu mel noon dañ leen war a jàppale ñoŋal leen dooleel leen mais pas may directeur Ageroute damay jóge fële gis naa kenn koo xam ne peut-être que c'est nami ami ou c'est un français affaire de complexe yooyu la ñu war a dindi bàyyi Sénégalais liggéey parce que munoo munoo jël alal préfinancé dara ba pare te doo ko àggale loolu moom dama ko munul gëm kon pont boobu ñuy wax bëgg ko si di ko xeex coow lu di si nekk yooyu dañ ko war a arrêté parce que munu financer di milliards ba pare di bàyyi xaalisam di nax saa yi loolu c'est inadmissible. waaw xam nga loolu et nous lançons un euh, appel aux euh, autorités. qui changent de comportement. loolu moo vraiment euh, bëgg bëgg sa réew la. Mhm. parce que lu mat dix milliards am na feneen fu mu xaj ci moom. waaw wala fu mu ci yenn xëy na sax même ci beneen projet. Mhm. waaye xaaru ci kenn. waaw préfinancé ko. waaw loolu yëpp bëgg na ci patriotisme la bokk. ci bëgg mhm. sa réew la bokk. waaw kon kooku waa Ageroute wala boog benn agence bu mu mën a doon. dañ ko war a gën a encouragé gën ko jàppale. ba mu am yeneen yeneen yeneen national yoo xam ni. personne euh, boo xam ne dañu yore seen société nationale di mën a góorgóorlu ci sens boobu hmm. kon euh, monsieur Djibril Diop nga xam ne yow yaay euh, président Front pour la République du Sénégal yaa am nekkoon suñu ganu tey ci hmm. ci waxtaan wi lee hmm. ban baat ngay tëjee waaw di la gërëm di la sant El Hadj Malick Seck di gërëm waa Sénégal yëpp jaarale ko par son parce que yii da ngeen ñu may occasion ñu mën di wax ak sénégal yi di man di gindi sénégal yi ak di gindeeku bu fekkee ne wax ji li baax sunu borom la lu bon si ñun la waaye tamit di ñaanaat di waxaat au chef de l'État ne ko réew mi jàmm rekk ku jikk et à l'opposition bi mu bokk et à la société civile réew nag kenn mënu koo yor wala kenn munu ko wut si fitna réew si jàmm lañ koy tabax si si si jàmm lañ koy amee li xew si réew mi fan yi ñaaw na trop surtout nag lu ñu xamewul Sénégalais bu ñu demee nag bay nangu ay nit di ñu rax ñu leen di topp mooy kon war nañoo xoolaat suñu bopp ak tamit di wax ne tamit yenn décision dafa am Sénégal loo xam ne dañ ñu ko xamee woon mooy bu coow amee liñ naan arbre à palabre mag ñi dañ ko tegoon muy baawabaat bu mag bi ker ga ñëpp toog ñu diisoo waxtaan péncoo mbirum réew bi trouver ay solution foofu nag lañ toll moo tax j'appelle à mes euh, confrères ak tamit amee mes certains de mes frères de l'opposition que balaa travaux yi di jeex ñi ñoo xam ne gëm nañ ñi dañuy nekk candidat ñu rejoindre le dialogue parce que c'est très important parce que di d'ici vendredi et d'ici lundi on par des points yoo xam ne si des points essentiels pour élection présidentielle yi ñu jëm di la gërëmaat bu sant El Hadj Seck di la sant si invitation bi ak di sant tamit suñuy kilifa en commençant man dama am kilifa Serigne Modou Boussa Dieng di ziyaara tamit xalif généraux yëpp sans exception kilifa aada yi ak di ziyaare Sénégalais yi nekk bitim réew di leen wax ne réew mi ñoo ko bokk te lu ñu bokk nag ñu ko séddoo te kenn mënu jël bàyyi sa morom kon donc dañu war a toog péncoo ko waxtaanee réew mi trouver ay solution réew mi mën a jëm sa kanam di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf euh, Djibril Diop euh, di président front pour la république Sénégal nekkoon suñu gantey tey gis nga waxtaan wi waxtaan xaw na yaatu un euh, mu ñu wax na ci wàllu dialogue national bi wax na ci jafe yi nga xam ne amoon na ci diggante Khalifa Sall ak Yewwi Askan Wi ak moom itam digganteem ak yenn Yewwi Askan Wi wax ñëw na tam ci wàllu préférence nationale bi nga xam te nii war nañ ko teg ci kaw a kaw suñu doomu réew seen ñuy. jëmmal leen euh, ma kàttanal leen ba seen société nationale yi yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi ñu am doole di liggéey liggéey réew mi te bañ di jéggaane loo xam te ni am na ci réew mi euh, ñi nga xam te ne nii euh, comme ci wàllu dialogue national bi li ko indi mooy ci wàllu fitna yi ñu jógee Euh, depuis le 1er juin yal na ci ak li ko jiitu ci mois de mars 2021 euh, ñi ci faatu yal na suñu borom jéggal leen te yërëm leen ñi ci am ay gaañu gaañu yal na suñu borom saafara leen te ñaan suñu suñu suñu borom def jàmm ci euh, Sénégal def jàmm ci kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiitu def jàmm ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ba waxtaan ak jubbu ànd doon benn sunu borom mën na ko yal na ko def ñu jox leen dig daje ba beneen incha allah.